wane lañu te gëmuñu leen lu dul lii ñuy bégal saa yu ne ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émission ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maymuna Sarr Malu dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dundu waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu Mourchid ak ay partenaire am taxawu tout tànk yi mooy seen yitte. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaan mbégte nag bu baax a baax ak toogaat fii ngir jagleel leen émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak union ak World Vision ci ndimbali union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum violence sexuelle yi nga xamante ni ñoo ngi koy nemmeeku bu baax a baax ci réew mi ñu koy teg tout tànk yi mbokk auditeurs yi comme ni ma leen koy waxee saa su nekk rek waa centre de guidance infantile et familiale. lañuy liggéey euh, jëm ci wàllum maltraitance maanaam métital yi ñuy teg tout tànk yi rawatina euh, wàllum viol yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax ci réew mi ci loole nag tey ñuy dalal monsieur Issa Ndiaye euh, di formateur en travail social foofule ca école boobu boobule di ENTS ñu dalal itam Mame Sophie njaay kenn dootu ko présenté ci plateau CGT moom mu ngi bokk foofule ci centre de guidance infantile et yore lépp lu jëm ci wàllum accueil bi ak accompagnement bi jëm ci wàllum victime yi laataa ñoo gën a xuus nag ci waxtaan bi dañuy jox seen invité kàddu gi mu daal di nuyoog mbokku auditeurs yi monsieur Ndiaye nuyu nañ la. Marie maa ngi leen nuyu bu baax ci leen dalal jàmm. Euh, di kontaan aussi si seen ñëw bi di ma invité sur euh, une émission organisée par Cegid boo xam ni euh, c'est moi qui ai installé d'ailleurs la coordination de la région de Thiès c'était en 2011 donc j'ai travaillé déjà dedans je suis très content de participer encore aujourd'hui sur le débat sur les violences les abus sexuels les maltraitances sur les enfants sur les questions de protection de l'enfant Euh, ñuy jox kàddu gi Sophie mu daal di nuyoog mbokk auditeurs yi Sophie kàddu gaa ngi noonu. waaw may mun a xanaa di kontaan rek tey ci sama invité parce que sama professeur la en même temps mais euh, mës na sobu ci loxoom dugal ci lu ñuy liggéey maanaam. kuréel bu ñuy wax Ségit jaar na fa xam na naka la ñuy euh, taxawoo tu tànk yi donc mooy am mbégte wax dëgg yàlla jàkkaarloo ak moom donc euh, ñu gën a waxtaane rek lépp li nga xamante ni si soxal na wàllu xale yi donc euh, di ko remercier encore une fois parce que démb démb laa ko contacté mun ma amul benn problème donc di ko remercier lu baax ci bu baax ci formation bi ñu jox parce que tey jii bu ñu doonee dara rek gannaaw yàlla loxoom loxoom mi ngi ci biir. Mhm. donc euh, ñu di fàttali également mbokk auditeurs auditrices yi comme ni ñu ko daan defee chaque fois du ñu tàyyi rek di waxtaan ak ñoom pour que ñu gën a ñaaxaat njaboot bi pour que ñu gën a waxtaanaat ak euh, ak xale yi sur les questions de violence sexuelle parce que xale tout tànk la xale moomin la xamul dara donc euh, ci loolu la ñu bëggee waxtaan rek xam naa si kanam ñu gën a xool si waxtaan bi. Mhm. mbokk auditeurs yi comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñuy dalalaat waxtaanee ci violence sexuelle yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci tout tànk yi monsieur Ndiaye euh, ñu gis ne euh, viole yi bari na lool ci tout tànk yi jamono ji daanaka doo toog semaine boo xamante ni déggoo ci ñaari cas ba ñetti kaa yow en tant que formateur en travail social lan mooy sa xalaat euh, ci viole yooyu. waaw li sama xalaat mooy je crois que mesure yi ñu war a prévenir loolu dafa des lu bëri fokk nit ñi. di foog ni ñu koy waxee wolof di foog da ngay foog dara préparer ko donc si wàllu préparation boobu euh, coordination bi mooy des c'est-à-dire famille bi ci la bokk. Mm-hmm. waa école ci la bokk. léegi famille élargie bi aussi ci la bokk. léegi su ko defee ñëpp suñ leen former ak même les autorités. Mm-hmm. les autorités muy police gendarmerie les magistrats. Euh, te yooyu ñooñu sax déjà CEGID def na ay effort temps bi ñu nekkee ci formé nañ déjà des des magistrats des policiers sur sax nooy dégloo xale déglu bi rek c'est c'est compliqué. donc yooyu yëpp dañ ci war a former nit ñi. Mhm. kon même famille yi ñu xam ni ñuy foogloo nan la ñuy préparer aussi xale bi xale bi da koy yaraale si sécurité moom it muy sécuriser boppam. parce que xale bi mooy rëcc kër gi dem su amul soo installé wu yenn réflexe yi facilement ñu mepp ko yóbbu. donc yooyu yëpp dafa bokk ci éducation formation. bi s'agit di def déjà y a des ateliers yu ñu formé yu organisé pour population bi. Mhm. donc ateliers yooyu yëpp dañu ciy former population bi pour ñaax leen ci domaine bi ñu prévenir balaa ngaa guérir da ngay prévenir donc doo bàyyi ba dégâts am ba pare nga ñëw soog a xool noo koy saafara donc c'est la catastrophe parce que loolu sacrifier xale yi lay doon. Mhm. déjà traumatisme fa lañ koy bàyyi et cetera ni xale yi di màggee di am problème perturbation su ëllëgee donc balaa caag ñu fexe mu bañ a donc ñu fooglu xool kër yi nan lañ ko organiser xool te eh, li gën a jafe mooy souvent sax viol yooyu day am à l'intérieur de la famille. ñu mm-hmm. am ay mbokk ay relation su ko defee nit ñi par sentiment ñu jéem a couver loolu di protéger le violeur fàtte victime bi. Mm-hmm. parce que affaire famille la léeg-léeg nga naan da ngay protéger wala parent bi bañ koo yëg et cetera donc ñu nëpp nëppal ko. Mm-hmm. donc nëpp nëppal boobu aussi nañ ko war a bàyyi. donc ku violer la loi dañ la war a exposer xam lan la ñuy def def yoon donc yooyu yëpp ci la bokk donc au cœur euh, au cœur de ça c'est la formation de tout le monde tous les acteurs dañ leen war a former te ces mi ngi ci depuis longtemps mmh. mais il faut mu am ñeneen ñu ko jàppale ou bien ñu jàppale ko renforcer structure am ba mu laal toute la nation donc région yëpp am département yëpp am ñu sensibiliser ni ñi sensibiliser walla xale yi mhm. au niveau des écoles ak ñi leen di jàngal nga xam ni réflexe yi da koy installé si xale bi xale bi ku ñëwati si moom dina mën a déglu foog xool mën a moytu moo gën mu arrivé. Mm-hmm. donc loolu daal sama xalaat bu njëkk lool loolu lay doon. Mm-hmm. monsieur Ndiaye wax nga ko léegi mesure de prévention yi moo des bu baax a baax wax nga ko léegi itam waa centre de guidance infantile et familiale ñu ngi organiser ay ay ay ay ay ay atelier ay causerie ci quartier yi di wax ak ñi nga xamante ni ñoo di parents yi chef de ga euh, chef de quartier yi jaaree ko ci bàjjenu gox yi euh, gisoo ne euh, parents yi itam am nañ ci seen part de responsabilité bu fekkee ne waa CGIT ñu ngi def liggéey bu am solo boobu te it parents yi nekk ci biir kër yi war a ñoom seen seen rôle bu njëkk mu di communication ak seen njaboot te duñ ko def est-ce que loolu du freiner itam euh, liggéey bi nga xamante ni waa centre de guidance ñoo ngi koy def. dina freiner parce que actuellement société bi dafa am d'ailleurs sax problème de communication ñëpp remarqué nañu donc soo duggee par exemple benn salon nga gis télé bi tàkk xale yi takk seen euh, écouteur si ñaari nopp yi yor seen portable en même temps de regarder télé parent bi toog ne donc on a l'impression que euh, jege nañu mais finalement kenn ku nekk mu ngi si beneen environnement sori donc yooyu aussi ça jour su ko defee loolu aussi dañ ci war a jël ay mesures d'accompagnement comme le ministère de la femme de la famille de l'enfance ñoo war a am aussi euh, ay ay ay vigilance par rapport à ça ñu am ay ay euh, direction yoo xam ne dafa jëm si yee parents yi yee xale yi sur les ay contextes yu bees la nekk avec l'ordinateur xool nga internet donc finalement nit ñi dañuy toog jege nii mais chacun est dans son monde donc communication day des parents su bëggee communiquer xale mu jël ñaar ñaari écouteurs yi def si ndoxam ça devient difficile beneen aspect mooy au plan aussi social et économique nga xam ne parent bi amatul aussi jotu toxique mu ngi daw lu mu dundalee njabootam les conditions sont difficile de vie le niveau de vie c'est très difficile actuellement dans le pays mm-hmm. xool bien qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la croissance ak yooyu mais li may ñaax euh, gouvernement actuel bi mooy aussi croissance boobu nit ñi mën ko yëg dans les foyers mu changer seen vie améliorer ko même sur le plan suñuy wax croissance dañu war a améliorer aussi le cadre du travail ba nga xam ni parent bi comme ça s'est fait dans les temps en France ñuy wàññi heure de travail pour parent bi am jotu nekk ak ay doom mais yooyu aussi dañ ko war a def donc loolu ñu xool les heures nan nañ koy aménager ma nga xam weekend parent bi dina am temps nekk ak xale yi moom aussi li ko war donc sur le plan de l'éducation mu delluwaat si ensuite structuration famille Sénégal yi on parle de bàjjenu gox c'est très bien c'est une très bonne politique man su ma sañoon loolu ñu approfondir ko wutaale ay nijaayu gox ni mu amoon bu njëkk parce que problème su ma see am si famille bi mais bàjjen bi mooy ñëw mhm. régler ko ak père de famille parfois même day imposer solution donc yooyu je crois dañ ko war a améliorer wutaat bàjjenu gox yu bëri encourager leen jox leen ay moyens dolli si ay nijaayu gox donc former leen aussi parce que la formation est au de tout hein mm-hmm. former leen aussi si aspect yi ba nga xam ne ñoom ku ñuy waxal li nga xam ne kii xam na li muy wax ensuite loolu donc euh, dafa laaj donc euh, benn benn environnement boo xam si compliqué il faut intervenir si environnement bi yëpp donc nit ñi fi ñuy liggéeyee donc heure de travail ñu xoolaat ko mhm. donc par exemple les moyens de vie aussi ñu xoolaat aussi la précarité donc euh, euh, tàmbali nañ ko def euh, avec les pensions et cetera dina arranger mag et cetera parce que xale yi amuñu liggéey mhm. ensuite ñàkk liggéeyu xale yooyu aussi ñu xool ko parce que te boobu aussi day indi violence maltraitance et tout ça agression yi am si tali bi yàggul xale bu rëy moroom mhm. donc je crois que yàggul yàggul mu am et cetera donc les viols ak yooyu jot ku bëri aussi dina donc su ko defee nit ñi taxawaalu ils n'ont rien à faire de ça des agressions comme ça donc yooyu yëpp dafa laaj nit ñi xalaat si c'est compliqué dañuy xalaat ni simple mais c'est très compliqué paquet lay doon boo xam ni kenn ku nekk fi sa xam-xam màcc da ngay joxe solution bi fa la am ñu connecté ko famille yi changé d'accord parce que suñu bëggee euh, copier euh, des familles yoo xam ni c'est européenne on n'a pas la culture on a dañu am ay problème mm-hmm. nañ dellu suwaat suñu famille bàyyi ñu ko wax si dellu dellu suwaat mais nañ ko continuer donc wut ay bàjjenu gox yuy jeune wut ay bàjjenu gox yoo xam ne ay mag lañ aussi. d'accord comme bu njëkk bàjjen donc daan âge ñëw imposer solution si kër gi xool donc yooyu dañ si war a dellusiwaat xool donc surtout à la famille mais là le ministère de la famille a la responsabilité de le faire. donc ay orientation présidentielle ñooy am ñooñu mën ko def opérationnaliser ñun ñu ngi nii service technique état bi la. donc suñu fi ñëwee jox ñu benn projet bi mel noonu on leur dit tout ce qu'il faut faire parce qu'on est déjà payé pour ça mais ñun kenn solsiwuñ te fii bëri na mémoire yoo xam ne étudiants yi ñoo koy def ñu encadré sur la maltraitance les abus sexuels viol et tout ça mais pourquoi ministère yi duñ ñëw jël mémoire yi exploité ko y a les solutions à l'intérieur xale yi si mbedd mi yëpp moo propose toujours des solutions mais loolu gouvernement moom patrimoine u ENTSS nañ ñëw jël carrément mémoire yi jox ko les conseils techniques des ministères solution yi si nekk ñu appliqué donc loolu aussi maa ngi koy jàllale si émission bi pour solutionner maintenant abus sexuels yeeg violence yi mu wàññeeku. Mm-hmm. mën na nekk. Mm-hmm. lu mën a nekk la. Afia FM Afia askan wi moo tax a jóg. mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéenay seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum violence sexuelle yooyu le euh, Sophie euh, monsieur Ndiaye pour am na ay solution yi nga xamante ni proposé na ko ay solution yu yu yu yu am solo yoo xamante ni bu ci nguurub Sénégal dugalee loxoom xëy na. viol yi dina wàññeeku. Euh, waaw damay rafetlu vraiment intervention parce que lu mu wax nii c'est tellement avéré en plus li tax ma gën ci kontaan mooy dañu wax école nationale des travailleurs sociaux spécialisés donc solution yaakaar naa ne bu ñuy wër solution rek. ci gouvernement bi donc waruñu jéggi école des travailleurs sociaux xam naa ni euh, bu ñu bëggee saafara yenn ci. méthode bi nga xamante ni population bi dañ koy jànkonteel mën nañ ko amee fii nga xamante ni si mooy ci biir école bi mais damay revenir ak un peu sur lu mu wax mhm. sur la famille c'est important la famille également c'est la base parce que famille bi moom mu nga xamante ni moom mooy régler yenn question yi imagine nga dugg si kër papa nekk de côté yaay nekk de côté xale yi également nekk ci seen beneen monde donc loolu dootul favoriser communication amatul communication yar anamu donc man damay damay damay wax souvent ci émission yu ñu daan def que ni téléphone yi yàq na lu baree baree mm-hmm. bari ci biir kër yi amatul communication yaa ngi toog mais yaa ngi wax ak nit ailleurs yaa ngi toog sa xel mi ngi nekk ci keneen sa yaay communication bi war a daw ak moom sa papa sa ay fra fratrie bi sa yaay sa sa raq yeeg ñoomi seen donc war na am lenn au moins luy daw seen diggante mm. ba nga xamante ni loolu mooy raffermir les liens mais bu ñu demee dem ba léegi loolu yëpp ñu seppi ko teg ko fële du dund yeneen modèle euh, yoo xamante ni si xamuñu ko woon baaxoowuñu ko woon jikkoowuñu ko woon donc yi lay indi phénomène yi rek lay mën a indi te également revenir na si euh, l' aspect bàjjanu gox mm-hmm. ñun du ñun waa CGIT duñu tàyyi di dem ci li nga xamante ni si euh, mooy bàjjanu gox yi di di def ay suñu ay euh, sensibilisation di ko accès ci ñoom di ko jaare ci ñoom ñoom ak euh, chef de quartier yi délégué de quartier yi parce que ñoom ñooy porte d'entrée yi boo bëggee dara si si si si si si dëkk il faut nga jaar ci ñoom donc man idée boobu lu lu lu lu rafet la dañ koy rafetlu idée bàjjanu gox ak nijaay gox mais malheureusement Sénégal dañuy jël ay initiative ba nga xamante ni si ñëpp yaakaar nañ si dara ñu bàyyi ko mu tombé mm-hmm. à te loolu du jëmale réew bi kanam te loolu te vraiment gis naa ni bàjjanu gox yi dañu am responsabilité ndeysaan bu nga xamante ni si bu ñu duggee ci sa famille waxtaan ak yow lépp lu nga xamante ni si solution lañ lay indil ci saa si mm-hmm. bu dee nijaay yi mais nijaay ci kër lan la ko li prof di wax professeur Serigne Mombaye je le salue au passage muy wax mu ne nijaay dafa mel ni nijaay maanaam mel ni yaay rôle bi yaayu am moom la nijaay am ci biir kër gi lu nga xamante ni gis na jarbaatam di def naka su dul noonu mu mën ko corriger ba nga xamante ni si xale boobu dina jaar chemin bu baax donc éducation bi nga xamante ni mu amoon auparavant nga xam ni ñëpp dañuy jël seen loxo dugal ko ci sur l'éducation de l'enfant nga xamante ni si bu ñu gisee naka su noonu xale bi ñu commencé bëgg mën a mën a intervenir donc looloo fi amatul kenn ñemeetul jël doomu jàmbur di ko la di ko corriger boo ko waxee ñu ne danga maa bañ dangaa def nii dugg na fi génn na fi donc yooyu jikko yi nga xamante ni xamuñu ko woon auparavant moo fi war a deñ te état bi nag moo jël moo yor la vraiment la responsabilité dindi fi lii sinon ci kanam la jëm te bu jëmee ci kanam population bi ñu ñëpp ay souffrir nañoo chaque jour que jëfee nga dégg ay agression chaque jour nga dégg ay viol man mii di wax ci sama wàllu liggéey li may jot ci ay victimes de violence sexuelle dafa bari c'est énorme man mënatuma tëdd concentré wu nelaw parce que bu guddee xale yi lañ lay wax muy ñëwaat sa xel sama tonton moom a abusé sama papa moom ma abusé sëriñ daara ba ka ca école ba professeur ba et cetera cetera mu mel ni xale yi amatuñu ku leen di protéger te yaay yi ñoo ci war a jug en en premier parce que yaay yi ak papa yi ñoo yor seen ñoo yor euh, ba ñuy jur seen doom kenn fekkewul j'ai l'habitude de le dire donc balaa état di ñëw sax yow yaa war a njëkk am mat gu day ni nga protéger sa doom parce que doom nawle la comme j'ai l'habitude de le dire di rafetlu vraiment li mu li mu li mu wax tout à l'heure di mu mhm. développé parce que am na solo am na mhm. solo trop mhm. monsieur Ndiaye ce qui est yaa ngi koy wax sànq ci say commencement wax moo di yooyu tout d'abord ci biir kër yi lay nekk ci biir kër yi lay amee jéggiwul biir kër gi jéggiwul biir gox bi nga xamante ni xale yi foofu na dëkk ñu ngi souvent ne euh, sutura ak maslaa bi fii ci seen société sénégalaise bi dafa bari lool lool lool loolu di waral nëpp nëpp yi ci yenn cas de viol yi euh, naka lan mooy solution bi euh, ngir rek euh, dakkal nëpp nëpp yooyu nga xamante ni ñoo ngi koy nembeegu ci yenn cas viol yi. solution bi d'abord si xam lay doon parce que nit ki su xamul conséquence bi nga xam ni ki ñuy violé victime bi moom lay dund durant toute sa vie mm-hmm. du xam gravité problème su ko xamul pour moom c'est très simple c'est pas c'est pas grave lay wax nëpp nëppal ni bon su ngeen ko dénoncé day dem prison doomu suñu doomu bàjj la suñu doomu tante et cetera or c'est un crime mm-hmm. kon nit nit c'est comme nit koo rey complètement donc euh, parce que abus yooyu dafa laaj faj waaw mm-hmm. ah, une prise en charge mm-hmm. donc prise en charge psychosociale te prise en charge psychosociale boobu amuñ ñu ko bañ a def ñu bëri si réew donc psychologue clinicien yi bëriwuñ fi kon psychiatre yi bëriwuñ fi amuñu sax d'ailleurs spécialité boobu dans si pays bi yëpp su ko defee donc comme xamuñu lu muy jural victime bi dañ koy néewal xool néewal boobu nag mooy indi réaction yooyu nëpp nëppal bi pour ñoom c'est pas or loolu mën na indi folie xool donc déséquilibre mën na indi ay déficience mentale si nit donc nit ki mën na fa jóge sax de dem prostitution mm-hmm. parce que pour moom kooram amatul valeur donc nit ki mën na fa jóge xaru mm-hmm. donc cas yooyu yëpp am na parce que maa ngi fàttaliku benn cas bu ma bu ma professeur Serigne Mor doon nettali dans son cabinet Et euh, dans les temps benn mère de famille euh, boo xam ni liggéey na ba retraité léegi ses enfants sont assez grands ñuy remarqué ba un beau jour ñu remarqué ni seen yaay sangootul dootu sang ensuite ñu remarqué ni seen yaay su génne sac à main wu jigéen ñi lu mu for si biti si mbuus luy taxawaal daf ko dugal si sac léegi ñu ñëw consultation si professeur pour voir lan moo arrivé seen yaay mais prof bi mu defee liggéeyam diagnostic am da ko dafa découvrir ni seen maman elle la été violée durant son jeune léegi occupation bi mu nekkoon di liggéey moo caché traumatisme bi bien que donc euh, caché na traumatisme mais moom elle souffrait donc il y avait une souffrance xool durant toute sa carrière donc elle a dû souffrir cette femme là et faire des enfants avec son mari d'ailleurs yenn conséquences yi mooy yenn soo violé ñenn yi sax duñu nangu jotee se jëkkër la ah. mm-hmm. de am problème foofu donc elle a découvert que cette cette, femme a été violée durant sa jeunesse foofu la ko découvrir léegi pourquoi famille comportement nekk traumatisme bi donc dem na léegi ba liggéeyatul su xëyee toog voilà c'est le moment maintenant de penser mémoire à long terme yi donc di ñëwaat donc elle a fait maintenant vous voyez ça ça lui un problème de santé mentale xelam nekk commencé dem donc mu am comportement yooyu ses filles n'étaient pas informées ses enfants n'étaient pas informés kon conséquence boobu mais nit ñi duñ ko xam c'est sûr que donc genre nëpp nëppal moo amoon foofu. et cetera donc mu màgg ak moom normal mais à la fin xoolal conséquences yi ñëw foofu famille ba suñu xamoon ni conséquences yi nii lay mujjee mais dañuy dañuy dañuy déclarer loolu ba pare jël victime bi dem faj ko victime bi da nga ko war a yóbbu mu faju dafa war a faju parce que nit ñi du gis séquelles xam nga ñoom pour ñoom maladie rek mooy maladie booy tëdd et cetera wala nga gaañ ñu la faj non il est blessé dans son fond dafa blessé dañ ko war a faj. d'accord une prise en charge psychosociale bu normale boo xam ne dañuy suivre rendez-vous yi ba traumatisme yi effacé wu kon donc loolu suñ ko defoon tey jii loolu du am conséquence boobu mm-hmm. donc voilà donc xam nga loolu donc nit ñi suñu amoon information ba xam ko yooyu dañ ko war relater mais yu mel noonu si ay euh, mémoire wala thèse lañ koy relater ci ça existe ici donc fii xale suñu def thèse ak yooyu dañuy dem interroger ñooñu ñu wax ñu def ko si biir mémoire bi donc léegi malheureusement bon Sénégal taux d'analphabétisme élevé ñëpp mënuñoo liir am accès yooyu mais yooyu aussi le ministère de la culture wala ministère yi defendre xale yi et mën nañu vulgariser yooyu ah par des journaux et cetera donc ñiy defar film loolu laa lay wax c'est un paquet compliqué ministère de la culture ñiy defar film et cetera ils peuvent jël looy théâtre jël lu mel noonu xool ko nii xam lii c'est la réalité ñu def ko film mu jaar ci télé yi nit ñi mën a sensibiliser wu xam euh, les conséquences aussi de ces violences là donc liggéey boo xam ne ñëpp ñoo si war a jàpp la c'est compliqué mais ñëpp suñ si jàppee rek mu mën a mu mën a sotti mhm. pour te donner un exemple mhm. donc yooyu mooy indi nëpp nëppal yi ak yooyu beneen nëpp nëppal bi li koy indi mooy beneen penchant bi tu te dis par exemple c'est le père qui a violé mère bi ni non attention su feeñee mariage am day éclaté mhm. elle a donc mu nëpp nëppal ko ce cas on l'a eu à Ségip une mère est venue là-bas ses enfants étaient violés par par le père mais mu ni mukk du du ko déclaré donc il a fallu que la police xam nga la police de des Parcelles Assainies wax Ségip mu def euh, médiation pour woo femme pour que mu nangoo porter plainte c'est difficile su ko defee les la situation des juristes ak yooyu yooyu mën a si jàpp donc pour que nit ñi mën a dem justice yooyu mën a arrêter quand même c'est très criminel il faut arrêter ça mm. même sur le plan de la religion on n'accepte pas mais il faut dénoncer ces gens-là léegi xool nga problème sensibilité bi aussi donc kiy protéger mariage am mm. bañ mu éclater finalement sacrifier ses ses deux et c'était pas une seule fille hein mm. d'accord mu bëgg sacrifier donc ses enfants au profit de, du maintien de son mariage. C'est très difficile, c'est des positions très difficiles. Mais les travailleurs sociaux doivent pouvoir gérer ça. Ils doivent gérer, etc. pour, pour nous expliquer. Donc ça arrive. Ça arrive. Les nègres aussi, nègres qui y aussi des cas, il faut pas douter. Il y a des cas aussi de, de fausses accusations. Mm-hmm. Il y a aussi, tenir compte. Les gens qu'on pour règle fay si ñoom leen ne fekk defuñu viol et cetera ça aussi ça arrive donc l'autre pensant aussi il faut y penser pour protéger aussi les gens qui sont accusés et qui n'ont pas fait de viol. Mm-hmm. Mhm, am na solo bu baax a baax Sophie euh, yaakaar naa ni monsieur Ndiaye dellusiwaat na ci importance bi nga xamante ni suivi psychologique bi am na ko ci xale yi nga xamante ni elles ou ils sont victimes de viol ñëwaat na itam ci wàllum euh, conséquences yi séquelles yi nga xamante ni mën na ko jur à l'avenir ñëw na itam ci lu am point bu am solo boo xamante ni concerne na ñun médias yi. ci wàllum émission yi nga xamante ni ñoo ngi koy jaarale eh, ci télévision yi eh, télévision yi yaakaar naa ni war na gën di jàllale ay émission yoo xamante ni ay émission de sensibilisation lay jëm dem ci wàllum viol yooyu s'il le faut ay eh, ay émission xamante ni ay éducative lay doon xale yi jëlee ci njëriñ ay émission yoo xamante ni ça parle du Coran ça parle de l'islam pour ñu gën a yee xale yi gën leen sensibiliser jëm ci actes yi nga xamante ni war nañ ko def ak war nañ ko bañ a mën a def waaw Euh, point de vue bi mu bu mu joxee toutaleur à euh, dama koy rafetlu en fait parce que ñun Sénégal dañu tàmm di néewal di di banaliser en fait yu baree baree bari loo gis dañ naan la garaawul wala moom après dinañ ko jéem a saafara mais lu am buñ ci jëlee leen mesures nécessaires jële ko fi buñ ko bëggee. li revenir na ci aspect yu bari mais li ma gën a yitteel mhm. mooy conséquence yu mu wax parce que xale bi nga xamante ni si dañ ko violé mhm. euh, yàgg na recevoir ay xale mais xale yi ñëw dañ naan la man mënatuma lekk perte d'appétit ñii dañuy perte d'humeur dootuñu amati euh, bu dañuy changement d'humeur du dañuy jékki-jékki rek euh, commencé agressivité commencé euh, di di di di recrovier wu ci ñoom du ñu bëggati waxati communication zéro dañuy dagg lépp parce que dañu naan man je me sens sale déjà lu lañ lay wax. dangay gis koo xam ne tata man de vraiment fi mu ne nii damay dugg ci douche bi damay sangu quatre fois dans la journée. ma ne ko ah bon ma ne ko lan moo tax fii mun ma parce que waa ji li ma def dafa dafa mel ni dama sentir ne damaa salte sama yaram. et normal mu parent yu bari du ñu seetlu loolu dañ naan kii dafa commencé indi adopté ay jikko yu bees or am na lu xew donc bu ñu jógee foofu am na ay fugue am na ñu nga xamante ni si da leen di jaral ñu jógee fa parce que agresseur bi mi ngi ci kër gi mënul leen dara ay xale moo leen di jaral ñuy fugue ci seen kër daw ci seen kër moroom yi di toog te parents yu bari am na lu nga xamante ni si loolu duñ ko bàyyi xel am na également retrait social moom laa doon expliquer tout à l'heure délinquance bi nag moom foo ko yomb foo ko sànq rek bi may ñëw ci yoon bi laay déglu émission tës euh, xalaas mais ñu ngi wax ni ay benn ma euh, koo xam te ne day regrouper ay xale yu góor di leen def danga sudul noonu mais bari na fi am na ñu nga xam dañ koy dañ ciy soog a jot mais ñun waa Cégid xam nañ ne loolu bari na fi donc c'est fréquent am na lu nga xam te ni war nañ ko xool xoolaat ko euh, ñëwaat na ci xale bi nga xam ni buñ ko abusé. war nañ ko toppatoo ñun waa CGT duñu jug ci def loolu parce que loolu moo tax ñu lëkkaloo ak ay kuréel yu mel ni ASBEF ba nga xam ne xale yi nga xamante ni si dañ leen def euh, abus bu ñu ñëwee su ñun ba ñu defal leen euh, entretien dalal leen mettre leen à l'aise ba ñu wax ñu li leen arrivé ñu mën leen orienter ci structure médicale yi ñu jël leen une prise en charge médicale jàppal leen defal mhm. leen ay examen gynéco bi xool leen ba xam lan moo leen jot ñu mën ko ñu mën ko saafara bu bu bu laajee certificat médical ñu bindal ko certificat médical pour mu mën a porter plainte contre l'agresseur bu ñu fa jógee ñu jël xale boobu yóbbu ko ci li nga xamante ni mooy association des juristes du Sénégal. Mm-hmm. AJS ñoom ñoo ñuy jàppale ci aspect juridique boobu noonu ba nga xam ne dinañ mën a jël avocat mettre ko à la disposition de l'enfant su ko defee lors des procès kooku dina mën a au moins plaider xale boobu. bu ñu fa jógee ñun waa CGT toujours dañuy jël xale bi li nga xam ne mooy aspe bi nga xam ne man pour man mu gën a ëpp sax importance muy l' aspect suivi psychologique. c' est li ma si gën a métti mooy parents yu bay dañ ko néewal pour ñoom boo waxee sama doom da dañ ko def nii nañ ko yóbbu hôpital moo leen soxal nañ ko dem porter plant mais l'aspect suivi psychologique ñoom dañ ko néewal te xamuñu ne blessure bi gën a métti bi nga xam te ni duñ ko manifesté wu boobu boo ñëwee ci suivi psychologique moom lañ lay jéem a dindil. métit métit bi nga xam te ni moom moo lay rongé yow xale bi moom la ñuy booy waxtaan ak psychologue bi di nga xamante ni si dina dem a dem a dem ba li nga li nga da ngay jékki-jékki ci suñu film yi xale dañ naan la avant may ñëw sa dama dama agressif woon mm. nii laa meloon mais bi ma ñëwee di def ay suivi régulier ba nga xamante ni si euh, di gisanteeg psychologue bi léegi je me sens libérée. je me mhm. sens bien. il faut le rappeler Sophie te loolu waa centre de guidance infantile et familiale dañ koy def gratuitement. dañ koy def gratuitement parce que ñun dañu am euh, psychologue bu nga xamante ni si mooy topp xale yi dans les quatre zones. ñi nga xamante ni ñun ñu ngi fa mu ngi leen topp au niveau de Dakar ñu ngi leen topp au niveau de Thiès Mbàkke également Kédougou donc loolu yëpp pour jàppale xale yi nga xamante ni si dañuy souffrir ci ñi ci kan moo leen ko teg muy tonton saay-saay bi nga xamante ni si topp lu dul bakkanam kooku euh, euh, xale yi nga xamante ni si ñoom la ñuy def métit métit yooyu donc psychologue boobu mooy dem ci région yooyu di leen di leen di leen suivre régulièrement ba nga xamante ni xale bi day amaat une réinsertion vraiment au niveau de la société ba nga xam ne du am problème mm-hmm. am na solo bu baax a baax Sophie monsieur Ndiaye euh, ci wàllum cas de yi dañuy faral di gis euh, benn impunité ndax yenn saa yi si yenn ci cas yi ngi gis koo xamante ni. def na la muy def ba pare def na ñaawteef ba muy def ba pare viole na xale bi et pourtant mi ngi tambaambalu ci mbedd bi xale bi di ko gis ay mbokk xale bi di ko gis mu doon lu metti lool euh, est-ce que foofu xalaat nga ne justice joué na partition ci jëm ci wàllum viol est-ce que def na li ko war. jëm ci wàllum viol yooyu. waaw mais foofu justice pour mu def euh, wàllam si wàllu li ko wax il faut les preuves la justice travaille selon la loi <laughs> c'est ça la loi nag ne se prononce que sur la base de de de et de preuves les preuves su ko defee donc loolu yëpp c'est en amont donc yooyu yëpp dafa laaj prévenir donc acte bi su amee parents yi au lieu ñu nëpp nëppal dañuy yóbbu d'abord. Euh, si sage-femme bi mu constaté defar certificat médical su amee ay seere ñu mobiliser leen su fekkee amuñu moyen dem foofu ñu dem Ségit Ségit déjà a un dispositif pour non seulement aider la ba nga am preuve yi parce que am nañ euh, ay partenariat avec les hôpitaux avec ASBEF euh, ak ñeneen su ko defee di nga am certificat médical bu prouver loolu mm-hmm. il faut prendre aussi tout le matériel tous les bagages yoo xam ni preuve la ñu sele ko soo ko selee maintenant tu suis la procédure porter plainte bi aussi il faut que euh, ñi euh, les tutelaires de la responsabilité de l'enfant mën koo def suñ ko deful AJS wala keneen substitué wu ñëw porter plainte plainte boobu foog mu donc ñu poursuivre ko donc jël procédure police yi enquête de police bi aussi papier boobu yooyu soo ko rassemblé justice mën a prononcé wu tu portes plainte maintenant le, le juge sera obligé de se prononcer mm -hmm. avec l'aide de Cegid et de ses partenaires mm avocat dina am gratuitement doo fay le juge sera obligé de se prononcer mais juge bi soo indee l'abuseur te preuve yooyu amul mais daf koy relaxer c'est une question aussi de droit soo amul preuve pour moom wóoratu ko wóoru ko ndax kenn du ko accuser du ko mettre en prison il va le laisser même su parents yi su leen wóoree ni kii la donc Euh, dañu foofu laay wax aussi que moo tax au départ man la tout est question d'éducation et de formation mm-hmm. nit ki su xamee ni su amul preuve su porté plainte du jàll du porté plainte day dem rassembler preuve yi ba pare nga porté plainte mu wóor ni yow di nga am gain de cause mm-hmm. soo amul moyen avocat CGIT est là pour t'aider mm-hmm. AGS est là pour t'appuyer voilà su ko defee réseau soo si duggee ñu appuyer donc loolu mooy indi loolu yu mel noonu ak aussi nëpp nëppal bi aussi parce que ngi ñi gis abuseur bi taxawaalu parfois donc day métti aussi ki nga xam ne moo lañ violence su fekkee parents yi ñoo protéger abuseur bi ça arrive ça arrive donc yooyu yëpp donc nit ki daf ko war a xam kon mën a rassembler yooyu pour que juge bi aussi mën a def liggéeyam parce que la justice est là soo ñu preuve vraiment dañuy relaxer nit ki donc il y a beaucoup d'exemples dans le monde yoo xam ne nit ñi dañ leen di relaxer pur et simplement parce que y a la question de la loi donc yooyu aussi si formation yooyu causerie dañ ko war a jàngal nit ñi pour wax leen ñee ay preuve la ñuy liggéeyee su ngeen yóbbul preuve jarul sax ngeen fay perdre seen temps parce que ki ngeen yóbbul duñ ko jàpp c'est important mm-hmm. mais autre chose à savoir aussi loo xam ni aussi police daf ko war a xam juge bi xam ko parents yi xam ko mooy aussi eh, l'abus sexuel dafa am eh, les abuseurs dafa am prof ay profil dafa am pro profil yi bokkul le profil d'abuseur nit ki su dee abuseur am na ni muy aborder victime am léegi si biir profil yooyu am na si benn cas d'abuseur boo xam ni ni muy euh, casser l'enveloppe de protection de sa victime victime bi daf koy protéger mm-hmm. su ko defee soo def enquête de police bi mm-hmm. xale bi day mm-hmm. protéger abuseur bi mais police xamu ko loolu mooy loolu formation bi ci defoon policiers yi à l'hôtel résidence de Thiès donc soo déglu xale bi sa enquête de police xale bi di protéger abuseur bi comme quoi il n'a rien fait policier moom su amul formation du comprendre fekk abus bi am na soo abus bi amee ba am élément matériel yi on peut prouver que c'est bien le gars soo ko prouver léegi version euh, protection enfant boobu juge bi dina xam ni c'est faux le gars a réellement fait un abus sexuel pour mën la pour mën koo condamner donc yooyu aussi dafa laaj formation mais celui qui na pas formé mënul xam loolu te yooyu si formation bi la bokk je je me demande je ne sais pas je pose la question à, au professeur Serigne à travers ça. Mm donc parce que bi ma fay euh, stage la fa doon def avant ma koy ubbi li coordination stage euh, coordination bu euh, régional de Thiès. Mhm. donc euh, je crois que ma collègue bi ma fa nekkaloon on avait fait des exposés sur ça. donc moom mu jël benn volet man ma jël benn volet on avait exposé sur le profil de l'abuseur donc si c'est pas encore disponible à saisir moi je suis prêt à leur encore le document. Donc ñu approprier quoi d'abord, après ñu former encore les acteurs sur ça. Donc ça, je crois qu'il faudra rappeler ça. Sophie, ça, je pense que c'est voilà, important. C'est important, c'est très important. Waouh, les mots solo. Euh, surtout sur les formations des officiers de police judiciaire parce que euh, dañu seetlu ne euh, xale bi nga xam ne dañ ko tooñ abusé ko am nañu ci bari ñu nga xam te ni si bu njëkk ba boo daan dem police bu la ton bi la policier bi di defee enquête bi rek xale bi déjà dootul sawarati pour wax la dootul sa ñeme wax la hmm. day day day ragal mais buñ demee ba nga xamante ni si formé nañ leen ci les euh, sur l'écoute des victimes dem nañ ba léegi affaire bi changé na ba nga xamante ni si policiers yi bu ñu amee victime de violence sexuelle dinañ xam naka lañ koy aborder muy gendarmerie di policiers yi donc ñoom ñëpp formé nañ leen sur ces questions également formé nañ des infirmières ak nga xamante ni sii naka la ñuy naka la ñuy euh, touché ñoom ñi nga xamante ni si buñ jógee ci police ba ci ñoom la ñu jubali donc euh, police formé nañ leen ba nga xamante ni si dinañ xam ñoom tamit naka la ñuy abordé ak xale bi am na ñu nga xamante ni si bu njëkk ba da ngay ñëw ñu naan la dangaa taxawaalu ji woon ba li dal la mm-hmm. te pourtant nga jël faute bi yépp euh, rejeté ko si xale bi or xale xale la un enfant c'est un enfant amagul capacité maturité pour xam discerner le bon ak ak euh, vraiment le mauvais donc mënagul discerner loolu ki ko def loolu amaana moom la ñu war a mën a jël emprisonné ko ba nga xam ne keneen dootul sañ a def loolu mais damay revenir at ci ñun CEGIP loolu moo waral pour am ay ay def ay campagne de sensibilisation mhm. pour ñaax waajur yi pour ñaax askan wi seen doom buñ ko abusé nii ngeen war a def ak nii ngeen war a def jël leen preuve yi parce que preuve yi moo leen may mille chances pour que ñu gagné procès yi dama leen di wax souvent ci conférence communautaire yi wala ci euh, causerie yi wala focus group yi wala activité récréative damay am abitude du leen wax ne leen bu ñu abusé seen doom jël leen yére yi mu soloon bu leen ko raxas bu leen bu leen fóot yére yi c'est les preuves matérielles bu leen fóot yére yi te bu leen sang xale yi mm. mais am na ñu nga xam ni ci saa si amuñu beneen xalaat bu dul dem sang xale bi ba mu set te boo ko sangee lu too amati preuve te preuve yooyu pour nga am ko wax dëgg yàlla dangay dajale élément yooyu yëpp nga dajale ko au moins même bu agresseur bi doon def lu ko neex yow di au moins di nga ni man def naa lu ma war mooy dajale naa preuve yi dem naa police porté naa plainte war naa leen nii ak nii ak nii la def ñoom tamit ay nit lañ xam nañ dinañ analyser bu baax agresseur bi nan la def ba abusé xale boobu formation yooyu muy wax noonu def nañ ko dans tout vraiment euh, dans tous les zones yi nga xamante ni fa la CEGID nekk ñi ngi bu dee dakaar jël nañ ñoo ñëpp rassembler leen Thiès Mbacké Kédougou donc pour sensibiliser leen davantage sur ces question de violence sexuelle et je trouve que c'est important man nag damay ñaan vraiment état mu gën ci dugal loxoom parce que ñun bu ñuy def yooyu pour askan bi moo tax mhm. mais ñoom également war nañu gën a dolli euh, euh, euh, sensibilisation bi parce que ñi nga xamante ni si ñoom ñooy traité aspect psychosocial bu bari wuñu ci réew mi buñ fi bari woon xëy na amaana affaire yi dina wàññeeku. Mhm. mais bu fekkoon ni vraiment jël nañ ay mesures nécessaires yu nga xamante ni si apporter ko population bi jàppal leen ci ci ci wàll boobu dina dina gë affaire yi dina gën a wàññeeku. wax dëgg yàlla donc euh, du ma ñaax du ma jóg daal di ñaax parents yi surtout man nga xamante ni si parent yi posture parents yi ñoo ma gën a su suñu ñëwee bureau ba dañuy jooy sa kaw loxo yi yow te amoo droit yow tamit jooy ci seen kanam loolu la ñu jàngal à l'ENTSS donc yow da ngay dem ba sa xol bi day dëgër dutu xam euh, bu ñoom bu ñuy ñëw di lamantawu ci sa kanam da nga leen di dalal kii leen ma sawu leen mais am na si ku nga xam ne daf ma marqué tellement mm-hmm. bi ñu koy wax bi mu ñëwee bureau ba xamul woon ni ba tey xale bi mu ngi en état de grossesse te avancé boole ci ñëw na ba ma dem wax ko ne ko na dem hôpital bi jox ko kayit yépp defaral ko note et mu dem asbef asbef xar na fa dafa jooy bay bëgg dee ndax dañ ne ko boobu sa doom bi Euh, mi ngi en état de grossesse de quatre cinq mois. avancé bi mu ñëwee bureau ba dafa ma ni man su may génn fii damay xaru il a fallu ma nekk di wax ak moom di ko wax ak moom di indi ma ne ko di ko dama ko tegal benn film ne ko du gis nga ñi ñëpp lii moom même situation lañ mer comme yow donc lii du lu njëkk ci yow c'est vrai que lu bees la ci yow mais du yow rek yaa koy dund. Mm-hmm, comprendre nga. Mm-hmm. su ko jël a commencé nag bi mu xamee ni am na ñeneen ñu nga xamante ni si ñooy dund même situation que moom ci la commencé wàcc. xamaat ni ah donc man sama doom ji war naa ko jàppale ma ne que boo bu fekkee da nga xaw xale bi kan moo koy jàppale donc yow am nga responsabilité taxaw xale bi ba ca kanam kanam ci kër ci la commencé ndeysaan euh, donc di jàppale xale bi xam ni te peut-être destin am nii la. mënoon demee mais tamit euh, ku ci nekk war nga am taxawu ak seetlu vraiment ci sa xaas ci sa doom. Uh-huh. te am na revenir oon na sànq si benn aspect bu ma xamante ni daf ma ma ñor muy aspect nëpp nëppal boobu. Uh-huh. mës naa am benn victime bu nga xamante ni si yaay ji xam na ni papa ji mooy abusé doomam mais nee na su ko waxee sëyam day tas uh-huh. mais ñe fa ban réew la ñu nekk ba jëkkër gënal la sa doom. très sincèrement euh, parents yi des fois dama leen di xaw mere parce que vraiment sa doom ni nga sonnee ci moom ëmb ko neuf mois vraiment war nga ci am beneen xalaat bu dul su ma ko waxee sama sëy day tas donc loolu laa amoon pour l'instant pour sànni ko. Mm-hmm. suuf si yow laay desandi ba tey sax euh, nga yëngu ci wàllum accueil bi ak accompagnement bi euh, ku ne xam ne ne xale déglu ko yombul. Mm-hmm. xale déglu ko yombul parce que xale dafa doon loo xamante ni dafa fragile yow miy yëngu ci wàllum accueil bi accompagnement foofu le ci centre guidance infantile et familiale xale bi nga xamante nii dañ ko violé naka ngay procéder ngir am information yi. waaw pour am information ñun ENTSS dañu jàngal euh, xale bi da nga koy mettre euh, de confiance en confiance da koy da nga koy euh, naka laa ko mën a tuddee da nga koy mettre à l'aise je voulais dire. xale bi bu ñëwee des fois day contrarié wu du xam lan la lay bëgg a wax moo yim la wax pour mu génn am day day différé nag ci xale yi du ñëpp ñoo mel noonu mais am na ñu nga xam te ni pour ñu wax c'est tout à fait un problème mais yow yaay xam say technique ak yi nga xamante ni jàngal nañ la ko ay outils yu nga xamante ni si bu xale bi présenté wu ci sa kanam di nga xam naka ngay aborder ak moom bi njëkk nag mooy nga mettre ko à l'aise en confiance. Mm-hmm. bu nga ne ko man li may wax ak yow ci ñaar quatre murs yi lay yem. keneen du ko yëg donc dama bëgg li ngay dund ci sa xol te mu nekk ci yow ak ki la def naka su dul noonu si day ba nga ñëw fi seet si ma dama bëgg nga wax ma ko lu ma ci mën dinaa la ko de jàppale ba nga xam ne ki la def lii dinañ ko tëj ak lum la menacé menacé nag parce que des fois tamit agresseurs dañuy jël seen dañuy jël seeni façon parce que dañuy jël ay paaka teg la ko wala ñu ñu ne la boo ko defee damay rey sa yaay rey sa papa su ko defee xale xale la xamul pour moom sa bu bu ko bu ko bu ko bu ko boolee pare na dañ koy rey wala dañ koy def nangam donc euh, xale boobu boo ko mettre en confiance d'abord wax ko ne ko yow kat man ak yow ñooy waxtaan ci bureau bi li ñuy wax du génn fii secret la man ak yow ñoo ko bokk donc wax ma li la metti ma apporter la solution ci saa si da ngay gis mu libéré wu am confiance ci yow. et puis dalay wax danga koy wax man j'ai damay am souvent kii su may def entretien duma ma toog ay bureau comme nga toog fee kii toog fii duma nangu loolu damay déplacé wu toog ak yow nii comme ni ma toogee ak yow jël sa loxo nag teg ko sama loxo di ko raay pour nga xam ni man euh, yëg naa la pour nga xam ni man maa ngi ak yow pour jàppale la jusqu'au bout mm-hmm. pour nga xam ni vraiment mettre la à l'aise ba des fois da nga gis dañuy jooy man mii di wax ak yow sax yenn situation yi damay bëgg jooy mais mënuma jooy ci sa kanamam damay jaral ma dagg entretien bi dugg ci douche bi jooy lu may jooy fompat samay rangu ñëwaat toog mais nanguwuma toog di jooy ci kanamam parce que boo ko defee rek danaan kii war ma jàppale bu dee jooy mhm, moom aussi dootul amati solution donc loolu moo tax même parents yi aussi boo def entretien ak ñoom day day métti souvent Euh, pour nga pour nga am des fois élément yu ñu la war a wax carrément dañ lay wax tuuti bàyyi la ca des mais yow mi nga xam te ne si yow yaay déglu xale yooyu yow mi nga xam ni yow lañ teg ci responsabilité ngay waxtaan ak ñoom di leen indil ay solution yow yaay xam fan nan ngay procéder ak ñoom Mm-hmm. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen ngi seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision si ndimbalu Union européenne ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum violence sexuelle yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci tout tànk yi monsieur Ndiaye ñu gis ne. xale yooyu nga xamante ni ñooy ay dañ leen a abusé euh, des fois parents yi dañ leen di rejeté boo solu woon nii lii du la ci fekk boo defoon lii lii du leen ci fekk dañuy dem sax ba leen di diaboliser lan mooy sa xalaat ci loolu. waaw lii sama xalaat ci loolu mooy euh, euh, on est de d'écraser encore l'enfant mhm. loo xam ni du responsabilité parce que xale moom xale la. Mhm. dañ ko war a yiir yar ko dundal ko aar loolu mooy donc ce qui veut yi xamuñu seen warigoor xamuñ seen warigar donc dañu am ay ay par rapport à l'enfant yoo xam ni eh, seen religion sax daf daf leen ko imposer donc nit ñi finalement aussi xamuñ seen diine parce que xale bi sa responsabilité la nekk su nekkee sa responsabilité war nga ko mën a sàmm ba âge majeur nga soog a wax ni peut-être moom mooy responsable mais tant que duggul ci détachement boobu yaay yor responsabilité donc waruloo ko wax ni moo ko def wala moo ko tey xol wala si moom la déedéet parce que donc responsabilité parentale boobu dañ ko war a wax parent yi nga xam seen responsabilité la ensuite l' état jël sa responsabilité parce que ñu dañu amagul ay état fort su ñu amee état fort regarde li xewoon euh, France xale boobu doon bëgg a daanu si immeuble on l'a le monde entier l'a vu mm-hmm. léegi am benn euh, jeune africain qui était là-bas dem cueillir xale bi mais on a retenu les parents et on a arraché l'enfant des parents xool parents yi dañ leen woow donc day dañ dañuy am ay pénalité sanction ba pare xale bi dañ koo retirer famille bi retirer foofu état bi def na moyen pour que su retirer xale am fu mu ko def foo xam dina am climat de confiance boo xam dina fa mën a màgg normalement ñun nag suñu état yi dañu dañu doole googu am nañ ko parce que état moom am na doole état fu mu nekk rek am na doole mais dañoo appliqué wul loolu donc parents yoo xam ne ils se pensent ils sont irresponsables da ngay retirer xale bi ba pare sanctionné leen su soo ko defee benn yoon ñaar parent yi xam li leen war ci xale yi retirer de force l'enfant parce que benn parent bëggu nga jël doomam yóbbu mais état am na doole boobu force boobu yàlla may na ko donc retirer enfant c'est-à-dire dans ce cas mesure d'accompagnement mooy ay centre comme Gindi mais état bi dafa war a fonk améliorer prise def fa ay technique recruter des travailleurs sociaux spécialisés d'accord euh, def fa centre médical bu mu mucc ay def fa budget bu doy nga xam ne xale bi suñ ko retirer dañ koy mettre dans les conditions de tous ses droits mu am ko foofu donc retirer ko pendant quelque temps avant ngay interpeller les éducateurs spécialisés pour xool retour en famille bi ndax mën na nekk u pas da dem visiter parents yi ndax changé na ndax mën nañ accueillir xale bi sinon dañuy téye xale bi yooyu nag moo ñu manqué ñun. <laughs> monsieur Ndiaye si loolu laay laay laay ñëw ba tey am na xale yu nga xamante ni amuñu état civil. ba ñu juddoo kenn déclaré wu leen. ñu nekk ci école yi ñu dem négocier ak directeur bi mu bàyyi leen ñu jàng ba ba ñu war a def examen. ñenn ñi dem toog seen kër ñenn ñi duñ ko mujjee def am na xale yoo xam ne itam ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu dugg ñu école defuñu dara nañu taxawaalu ñenn ñi di yalwaan ñenn ñi di fanaan ci mbedd mi euh, avec loolu yëpp yëpp yëpp gis nga ne gisoo ne fii ci réewum Sénégal droit des enfants kenn respecté wu ko fi. est que d'accord nga ak man. pas kenn respecté kenn respecté wu ko ça posera problème parce que déjà soo ne lu ministère de l'éducation existe les enseignants sont payés. les enfants, il la gratuité de l'école. Donc, les droits de l'enfant sont respectés. Mais ne sont pas totalement respectés. Dafa am aspect yu des léegi aspect yu des mooy il un groupe d'enfants exclus. Ça, c'est l'exclusion sociale. Or, c'est pas normal. Ils ont le droit comme les autres enfants. léegi droits yooyu ñu am nag ñu bafoué ko mais état moo war a jël responsabilité restituer les droits à ces enfants là enfants yooyu dañ leen di retirer. et je commence par les enfants de la rue, euh, de, dans la rue. Mm -hmm. Donc il faut les retirer parce que par pas les enfants de la rue. Mm -hmm. Les enfants viennent des familles. Mm-hmm. Donc ce sont les enfants qui sont qu'on retrouve dans la rue. Mm-hmm. Et c'est anormal. Parce qu'il m'arrivait man may gud damay guddee wàcc vingt une heures vingt deux heures mais temps bi ma nekkee Ségite léegi j'y pense moins mais temps bi ma nekkee Ségite dama doon liggéeyal fi mais su ma wàccee vingt deux heures vingt di ñibbi sama kër romb ay xale sur bi je pense tout de suite à mon enfant à question bi ma doon posé sama bopp mooy est-ce qu'il est possible sama doom bi nekk si kër ga nekk dans la rue c'est la question que je me man ma ni non avec moi c'est impossible mënuma bàyyi sama doom bi dans la rue ma ni mes parents yooyu anañu ces parents d'abord il faut les retrouver et les sanctionner ba pare jël xale bi mettre ko dans ses droits état moo am doole loolu kii fi la bokk <laughs> état bi moo am doole loolu hmm? donc si doole boobu dafa waroon par exemple les les travailleurs sociaux de rue war na mën a am une formation filière boo xam travailleurs sociaux de rue mais su amagul ñu xool les éducateurs ou les travailleurs sociaux yi nekk si yenn centre yi di liggéey di def maraude si bi ñooñu ñu def leen ay agent assermenté agent assermenté mooy ku am kattan gis nga xale yi dans la rue yow mën nga réquisitionner la police ou la gendarmerie dugg ci kër gi retirer xale bi ou bien jël ko suri bi yóbbu il faut ñu am carte boobu pour entrer dans la loi mu nekk légal agent yooyu d'ailleurs des éducations spécialisées am na ñu bëri carte am na ñu am carte carte professionnelle mais ci carte yooyu il faut que ñu dolli ci aspect puissance publique boobu ñu mën na retirer ñoom un enfant de la rue mais aussi il faut que centre yi leen accueillir am moyen aussi pour les accueillir donc suñu amul moyen xale bi soo ko delloo kër ga day day xol si parce que déggoon nañ fii nguur gi jëloon na ay initiative gi retirer xale yi ci mbedd bi mais malheureusement ba léegi ñu ngi gis xale yi ci mbedd on l'a vu avec l'ancien régime on le voit encore avec ce nouveau régime parce qu'il ne s'appuie pas sur les techniciens yi war a def loolu ñu war a retirer il faut nga nga demande nan laay def ba retirer xale yi de la rue nañ ñëw INTSS c'est c'est c'est un service technique de l'État on nous pose le projet ici ñu nan la ñuy def ba retirer tous les enfants de la rue on va leur proposer un projet pertinent pour ça les moyens qu'il faut pour loolu structures yi ñu war a defar de manière euh, holistique on va proposer de manière holistique la solution xool su ko defee état bi imposer loolu déroulé c'est possible hein on a les moyens pour le faire et l'État a la puissance publique pour appliquer la loi loolu moom kenn mënu ko weddi maintenant beneen aspect bi bi nga wax pour xale yi nga xam ne n'ont pas n'ont pas été déclarés démb rek si guddi j'ai appelé une fille elle est en terminale sa sœur m'appelle de l'Espagne pour me dire que du def bac ren pourquoi. monsieur Ndiaye. li ñu jagleeloon ci waxtu daanaka jeex na nan lay bàyyi nga tàggatoo. maa ngi leen di nuyu bu baax di kontaan aussi si seen ñëw bi je suis très content de participer encore aujourd'hui sur euh, le débat sur les violences les abus sexuels les maltraitances sur les enfants sur les questions de protection de l'enfant Afia FM ci juróom ñeent fukk ak ñett gu tomb nee na am na solo bu baax a baax en tout cas daal su fi kàddu gaa ngi noonu nga tàggatoo waaw xanaa di remercier waat euh, mbokki auditeur auditrice su Afia FM mais balaa may tàggatoo rek damay daal di ñaaxaat wéyjur yi mhm. parce que chaque fois ñun ñoom lañ fi toogal tooguñu fi pour xas leen wala pour ŋàññi leen dañ fi toog pour dolli leen xel parce que xel matul ku nekk amaana euh, àddina bi euh, jot amatul peut-être que euh, am na lu bare bare bare waroon nga ko def mais bu dégloo émission bi mu yeewaat la ñun loolu lañ ci jublu. Mm-hmm. donc pour wax leen ni doom alal la doom sàmm la te bu ëllëgee yàlla dina la laaj nan nga sàmme woon sa njaboot. donc c'est important nit ñi di veillewaat sur l'éducation des enfants c'est important ñuy xoolaat xale yi nga xam dañ leen di maltraiter ci biir kër yi te parce que bari na xale bu ndaw 12 ans 11 ans ngi sëf ko liggéeyu kër gi yépp yow dem tëdd nelaw mhm. donc loolu dañ ko fi war a dindi mhm. dañ ko fi war a dindi xoolaat bu baax naka la ñuy jëflante ak xale yooyu te xale du fàtte xale bi amaana bu màggee dina comporté woon nga xam si dina la won ni bañ naa la parce que ba ngay gone ni nga ma doon taxawoo c'était pas comme ça donc ma fa laa jaare tàggoo di di remercier sama invité euh, donc ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal également mbokk auditeurs auditrice su Afia FM di euh, remercier sama collègue yi nga xam xamante ni ñoom laa fi nekkal may euh, Maymouna ak pawlo di remercier ak équipe bu Ségit yëpp ñoom Soxna Ndey faatu Ourey tout le monde Faustin ñoom ñëpp donc tey wax rek beneen yoon incha allah la remercier également Maymouna ci mhm. àndandoo ak ñoon ci émission bi. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax bàjjen di leen jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi am solo bi nga xamante ni yéen bàjjenu gox yi yéen a ngi koy def euh, di jaajëfal itam bu baax a baax waa centre de guidance infantile et familiale ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñoo ngi koy def ngir rek gën a aar tout tànk yi seen nekkin gën a fii ci réew mi mbokk auditeurs yi di leen jaajëfal yéen itam ci teewlu bi di leen jox dig daje beneen yoon ak waa centre de guidance infantile et familiale saa yu ne ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maymuna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu Mourchid ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte.